أرجت قصائدي قلوب الحملات لرأسي وهي بسر للكملات حاجت قصائدي قلوب الحملات sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant sëñ bu baax a baax a baax bégte mu rëy lañu am ak fierté bu mag a mag a mag sëñ Muntaxa xalifa sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa Bachir ñëw ba fii ci kër gi ci Mbàkke lu rëy ci nun la lu rëy rëy rëy lay ci nun ndax ab taalibe amul lu may ak sëriñam kon nag ak mbaaxam ak woyefam rek moo tax ak cofeel bu ñu am ci moom waaye du lenn luñ jëf loo xam ni war nañoo may loolu ci mbaaxuk sëñ Muntaxa lépp ak it woyofam ak mbaaxam ak bëgg dimbali nit rek loolu moo waral mu jógee Touba Mboul jaar ci kayal bu Cheikh Boumbaali ñëw fii loolu nag day lu rëy ci nun day lu rëy ci nun ci ci yoon wi ndax itam eh, ñi ko am bariwul nit nag boo amee lu kenn amul day sant yàlla dolli ca lam doon sant ñu ngi ñaan nag yàlla ak sëñ Tuubaa mi nga xam ne maamam moom lay liggéeyal lépp lu mu sumb yàlla na ko àggale ci sagom ci jàmm ak salaam te ñu ànd ko moom lépp lu mu yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla na ko yàlla àggale ci jàmm ak salaam ànd ko ak taalibe yi ak muridulaay yëpp sumb bii mu naal di université bi daara ji yàlla na yegg ci jàmm ak salaam ba naalaat yeneen ak yeneen topp loolu daal moom la ñuy wax boole ko xol bu sedd guy euh, di ñaan yàlla it ñëw gi ñëw ñu bokk ak taalibe yëpp ak murid yëpp ñi fi teewoon ak ñi koy dégg ñëpp ak waa Mbàkke gépp ndax bi mu ñëwee wax dëgg yàlla nun jotuñu ko wax kenn waaye fu sëñ Touba jaar moom kenn du ko nattam loolu moo tax mbooloo mi ngeen gis ci bunt bi yépp àgg na ci sëñ bi mëntoon a wàcc kon nag loolu rek day doon firnde wax naa ko ci oto bi itam nag ni ko wax naa ko itam ni ko eh, sëñ Basiiru dafa jóge woon tiib astafurlah dafa jóge woon tayif jóge fa ñëw taxaw fii ci buntu kër gi laajte alaaji meero ñu ko ñu ci biir sëñ bi alaaji meero génn fekk sëñ Basiiru ci biti nuyoo ko moom loole mooy lii rek kon nag loolu ñu ngi ciy santaat rek di ci gërëm suñu digg sëñ bi nag lu yàgg la euh, waaye ak mbaaxam rek itam ak fedd li moo tax euh, noonu la lawe ba ànd ba ci sëñ bas mbul doomam sëñ bee mu boole woon ak moom na ñëw fii ñu waxtaan jàppalante ci wàllu liggéey bi ko kooku de xam naa ko bu baax te ku mën a dimbalee la kon nag na nga ko dem te jaxasoog moom bind kayit jox ma sëñ bas jox ma loolu moo waral ma nit lépp lu may dox ak lu may wax ci sëñ Muntaxa ma ànd kook sëñ bas waaw mooy sama bunt ci moom mooy sama péete ci moom kër ga yëpp nag laa jaxasoo ñëpp laa xam waaye loo gis lu ne day am bunt bunt ba nag sabab ba mooy sëñ bas ndax ba ñu sëñ bi boole boobaa léegi 96 ci la ma boole woon ak moom xam nga loolu léegi tey mu am ay at waaw loolee nag dara soppeeku ci nag bi yàlla dogalee it mu nekk xalifa sëñ Basiiru Mbàkke it loola dafa gën a dox sama digg moom kóllëre gay dox di ko nemmeeku bu gisee ku ma war a laaj itam ndax ma koy laaj waxtu bu ne te mu nekkee xalifa sëñ Tuubaa kon loolu seede boobu rek ak témoignage boobu rek moom lañ ciy def. di ñaan yàlla daal suñ sëriñ bii yal na ko sëñ Touba taxawul boppam li mu bëgg a liggéeyal sëñ Touba ak li muy wax ci sëñ Touba li muy jëfal sëñ Touba ak yoon wi mu teg wi nga xam ni mooy yoon wu tegee ab murid war caa tegee mu teg ñu ci yoon yoon woowee yàlla buñ ko wàcc ba àddina ak àllaaxira saay rek baat daal mooy wax ci ñu sant. ku fi teew ak ku fi teewul waxuñu ko kenn nag barkeb sëñ Muntaxa barkeb sëñ Touba moo fi indi mbooloo mi waaye man waxuma ko. mu min mujisaati Muntaxa